Ah, di leen ñaanal yàlla nag ndax ngeen tuddee seen bopp geste geste di génération bu engagé ci solidarité solidarité boo ko waxee mooy lépp luy luy dugal luy jëm ci société bi nga def ci sa loxo ànd akook liggéey ci sa ñax sa ñaxu liggéey nga jël di ko ci am solidarité ci mbokk yi ànd akook discipline te discipline lu koy boo joxee mooy éducation éducation de base boo ko amee am discipline bu rëy te yëpp ngeen bànkoo ci discipline di ko def doomu aadama yi ngeen ñëw fi nag tey ànd ak mbokk yi ànd ak suñu jaraaf bi baax bi teral waa liggéeykat yi fii ci plage bi ndax plage bi ni ko suñu mag ji waxe plage bi ci fukk penc la bokk ndax pla plage xog la ñun fii lañu ñu juddoo waaye plage bi boo xoolee ba ñun ba ñu gën a nekk tànk ah tubaab bi ñoo defoon nañ fi benn pont moo tax ñu tuddee ko plongeoir fi lañ daan ñëw di tëb ci plonge bi ci pont bi di plonger ci géej gi waaye boobu fii plage bi setoon na de ndax xeer yi ñëwoon na ba fii mbalit amu fi woon waaye boo fi ñëwee di nga fa féexlu ci xel ci teey te doo fi am benn problème waaye jamono di dox muy tourner ba kenn xamatul nu muy nduroo waaye suñu mbokk yi xam ne dañuy ñëw ndam daan seen doole di defar lu ñu suturloo di ko jox ñi fiy ñëw ñiy lekk war nañ ko def def ci lekk ndax lekk fu mu am foofu dafa war a set ndax l'islam dafa santaane environnement environnement bu set yéen ngeen ñëw ci environnement bi indi fi seen euh, toilette indi fi seen poubelle yoo xam ne fu la ñuy def mbalit yi yëpp pour mu set kon nag ah def naa ne waa mbokk yi ñëw fii di liggéey fii war nañ leen gërëm bu baax. tey dañu taxawal tey suñu association muy génération engagée pour la solidarité le travail et l' éducation ci ak jeunes quartier yi nekk ci commune Fann Point Amitié yëpp. muy jeune zone B jeune rue 10 jeune point E jeune fan résidence jeune amitié jeune fan ok tey ñëpp ñëw bokk ci association bi indi sa xel sa xalaat ak sa taxawaay man nag ma jiite ko wane voix bi ngir jeunes yi ñëw ànd ci ak ñun ci citoyenneté bi ñu woote. citoyenneté nag soo ko wootewee da ngay xool li nga xam ne tey sa commune loolu la soxla nga taxaw ci tey bi ñëwee fii fekk fi Mambes fekk fi travailleuse brave travailleuse yi nga xam ne ñooy liggéey fii ci plage plage bi bokk ci commune bi wax ñu ne ñoom am nañ soxla boo xam ne depuis des années ñu ngi koy wax amuñ ci solution ñu taxaw ne tey ñun suñu geste bi ñuy bi ñuy njëkkee mooy wutal leen loolu muy toilette bii nga xam ne tey fii zone touristique la zone boo xam ne nit ñi dañu fiy ñëw di fi sangu zone boo xam ne nit ñi dañ fiy ñëw di fi am loisir dafa war a am jumtuwaay yi ci wax yëpp ak hygiène bi ndax loolu tey geste bi du environnement kese lay impacté dina impacté ci économie ndax zone bu setee fi ngay liggéey su setee nit ñi nañ fi gën a ñëw def ci xaalis su fi nit ñi ñëwee def xaalis ñoom ñiy jaay fii dinañ mën a employé ay nit donc tey gest bi ñu def yemul ci toilette dina dem ba yokk employé yi ci quartier bi yokk employé yi ci Fann Hock yokk employé ci commune bi donc ñun impact boobu noonu la ñuy woo jeunesse su Sénégal yëpp en général pour que ñu xam ne jeune soo amee soo nekkee jeune ci sa dëkk jeune ci sa quartier danga am benn mission sa mission mooy noo mën a bokkee si starting block li ñuy wax starting block mooy ñii di daw course 100 mètres fi ñuy taxaw naka nga siy bokkee pour daw rawante bi nga xam ne jeune Sénégal yi kenn waru leen ci donc man message boobu laay woote citoyenneté ak liggéey ak jàppalante si suñu biir di woow jeune commune bi yëpp également di leen remercier bu baax jeune yi fi nekk yëpp ay jeunes yoo xam ne ku si nekk am na luy yëngu ku si nekk am nga jàng nga ndax commune bi ñu nekk fii la université Cheikh Anta Diop nekk donc ñun jeune commune bi rawatina jeune Dakar dañu wane wane ware wane exemple bu baax ci jeune Sénégal yëpp ñu topp ci. foog moo Madiagne xam ne li mu def nii deful ko waa Fann deful ko waa Point deful ko waa Dakar mais Sénégal la ko defal ndax kàcc euh, plage bi dafa nekk plage boo xam ni ñëpp fi daje ñëpp a fiy daje waa Sénégal ñëpp fiy daje donc bu fekkee ndaw bu mel nii jël na alalam lii xajoon na ci boppam. mënoon na ko fajal soxlaam yu bëri mu xañ ko boppam defal ko askan bi loolu dañ koy remercier gërëm ko. di koy wax ne nag geste nag dafa nekk loo xam ne ñu ñëpp ci lañ bokk dina yaatu ba nga xam ne waxuma la commune bi sax waaye Sénégal yëpp naka daje ndax baax na gis ndaw loo xam ne prêt pour jël alalam jël engagement am yendu fi xëy nettoyer plage ba mu set taxawal lii loolu dañ koy sant di ko gërëm mais nag ku xool fi mu bokk xam ne nii la mën a demee donc dañ lay di la sant di la gërëm di la wax ni ñi ngi sa ginnaaw awanaar li ko fi indi fii mooy pour wax leen ni Mbadiane mii seen doom la seen sët la doomu Omar Gueye bu sangal kaam la lébu la ni yéen ci fii la bokk ci yéen ngeen jël ko dugal ko ci seen bopp moom bii bu soxlaa ku soxla ñàkk fii jël leen ko dénk naa leen ko teg ko ci seen loxo ngeen tette ko imam maa ngi lay ñaan imaam maa ngi lay ñaanaat sa a ngi jaraaf sa doom a ngi dénk naa leen ko ngeen tette ko ci liggéey bi mu euh, jublu ci liggéey bi ak jeunes yi jàppale leen ñoom it ñu jàppale. tey lii ma jaañ def yàlla wóor na ni teeru bi la waroon wala Magic Land yàlla wóor ne emploi yi nekk fii tey di jaay jën di jaay leneen ci biir hôtel yii la ñu waroon liggéey te liggéeyuñ ci tey bu ñu gisee jeune bu mel ni engagé wu taxaw ñëw jël association am tuddee ko geste boole ci imaam boole ci jaraaf boole ci képp koo xamante ni lu baax rek moo la tax a jóg te lu ma ci gën a neex dafa ne daray politique ñoruma lépp lu may def dama koy def ngir jaamu ci yàlla kon Madiagne dañ lay ñaanal yàlla taxawul la fi parce que ñun ñii dara feesul suñu bët lépp loo xamante ni nit moo ngi koy def ngir jaamu ci yàlla rek boñ ci wooyee dañ la ciy fekk si te nga jàpp ni bés ni ki tey dugg nañ sa biir association te dinañ la jàppale ci liggéey bi que lii dafa yombul lii dafa yombul képp koo xamante ni moo ngi lekk ci jën fii ci bërëb bi soo àggee nag ñu ñaanalal yàlla majaaj mii parce que tey jii képp ku fiy lekk ci jën hygiène nga soxla ak lu set ak lu dal place bii nag bëgguñu fi gis loo xamante ni lu féewaloo la wala lu ñaaw la yenn saay yi dinañ ñu ñëw di ñu kalaame buñ fi ñëwee di seetlu ay doomu Gueule Tapée lañ fiy gis ay doomu Fann ñuy def naka sudul noonu dañu leen di profité ci occasion bi xamal leen ni gox yi ñu dëkk képp koo xamante ne kuy def ñaaw téef la yaakaar naa ni say waajur yarewuñu la noonu nañu jël place bi def ko jaamukaay yàlla képp ku fi ñëw ñu dimbali la ñuy nekk ci kaban yi ak ñuy nekk feneen nañuy def loo xamante ni képp ku fi ñëw du ko xeebee imam wala mu xeebee ko chef de quartier wala mu xeebee ko jaraaf dañu bëgg lépp lu fiy nekk rek mu doon lu sell. maa leen di sant di leen gërëm. vraiment parce que bésu tey bi mënu ma ci woon bañ a teexoo ndax ki ko sumb mooy euh, Madiagne Madiagne xale bu baax la xale boo xam ne vraiment mi ngi si commune Fann Point Amitié di def def du baax weeru koor gii ñu génn matugul un mois wër na lépp luy moske si commune Fann Point Amitié indi fa ay teranga joxe ay ndog ci commune bi ñëw nettoyage u mosquée yëpp mu mu yore ko balaa korité gi ñu génn ci loolu matul un mois tey mu ñëw indil li rafet lii ci plage bi fi nga xam ne xale yi vacances yaa ngi ñëw xale yaa ngi fi. Euh, vraiment lu geste mu tuddee association boo xam ne geste dajale xaleelu commune bi yëpp parce que mu ngi ciy gis jeune commune bi yëpp quartier yëpp vraiment di ko ñaanal lii mu dem lii yàlla na ko yàlla yóbbu si kanam kanam kanam kanam vraiment xale bu baax la xale bu yaru la koo xam ne vraiment lu mu woote moom kenn mënul war a bañ a ñëw taxaw si man looloo tax vraiment ma bàyyi lépp lu may def ma ne tey moom mënu ma bañ a raté événement mu mel nii ma ñëw si maa ngi koy sant ko gërëm di leen ñaanal bu baax. ah geste bu neex la geste bu rafet. parce que fii nekk nañ fi xam nga ku def ci place plus de 15 ans du benn fan du ñaari fan. naxee nag dañ ko yàgg am fii mennum ma jaañ moo fi ñëw benn semaine bi mu fi ñëw ci weeru koor gi mu ñëw ma ne ko ñun lii mooy suñu mbëbët ñun waa euh, plongeoir toilette lañu ñu amul suñu yoon baaxul parce que fii ñëpp fiy wàcc si da nga gis handicapé yeeg ñëpp handicapé yi bu ñuy wàcc day metti ñu wax ko mu ne ma naan njëkk wàcceel toilette toilette bi mu ñu ko waxee deuxième semaine bi la toilette bi ñëw mu tegal ñu ko defar ñu toilette ba mu baax Madiagne nag dafa di ndaw goo xam ni ku mat ndaw la Madiagne Diagne ñun amuñu luñ koy fayee ñun waa plongeoir parce que moo fi def lu fi kenn deful moo fi def lu fi deful moo fi amit lu fi kenn amul ndax loo loo deful doo ko am moom nag moo ñu defal ñu gis li ñu defal ñu gis nag xeebuñu ko dañ koy ñaanal di ko remercier yaa ma dégg moom moo xam fi mu bëgg ak àgg yàlla na ko fa yàlla suñu booram di yeggal Madiagne dafa di jeune boo xam ni du naxe daal salaamaaleykum maaleykum salaam ni jëmbat la problème am nga faj problème bi ñun waa plongeoir loolu la ñu bëggoon amuñu ko woon Madiagne moo ñu teg tey fii ci li ñu bëgg moom moo ci dox moo moom moo ñu ko defal kon nag Madiagne du ñu def lu dul remercier ko lu duñ def lu dul jàppale Madiagne waaw fu mu ñu woo ñun waa plongeoir fu ñu woo ñu donc tey geste dafa doon association boo xam ne ay jeunes commune Fann Point Amitié ñoo ci nekk woote tey exemple ngir jeunes yi nga xam ne bëgg nañ impacter wala def lu baax ci seen commune ak ci seen dëkk ndax li ñu tax a jug mooy dañu jàpp ne soo nekkee ndaw dëkk ci réew wala nga dëkk ci commune wala dëkk ci quartier am na taxawaay boo mën a am ngir impacter positivement ci dundu nit ñi loolu moo tax tey ñun ñu taxawal association bi jeune commune bi jiital ma ngir ñu taxawal tey ay activités yoo xam ne ku ko gis rek dina xam ne jeunes ñi nga xam ne fii la université Cheikh Anta Diop nekk ay jeunes yi nga xam ne ay jeunes exemplaires lañ ay jeunes yi nga xam ne tey ci social la ñuy dox ci éducation ci santé ci environnement ak ci lépp lu nga xam ne dina jëmale réew mi kanam tey geste bii ñu def muy geste sur l'environnement maanaam cet mi geste la boo xam ne ñi nga xam ne ñooy liggéey fii ci plage cassation ñoo ko demandé woon ay années ñun ñu ñëw en tant que jeune gis problème boobu wut ci solution ba indi leen tey toilette mobile bu nga xam ne dina maintenir propre seen lieu de travail maanaam fi ñuy liggéeyee impact boobu nag yemul kese ci set bi ndax fi sa liggéeyu sa bërëbu liggéeykaay setee nit ñi gën faa ñëw su fa nit ñi gënee ñëw gën fa indi koppar gën fa indi kom su koom bi yokkoo ñoom ñu mën a employé ay nit tey kon geste bi ñu def yemul kese ci set dafa dem ba indi yokk xëyu ndaw ñi léegi maa ngi remercier tey jeunes yi nga xam ne ñoo ànd ak man yëpp ak autorité yi fi nekk muy jaraaf bi di imam di président Ndiaye bi nga xam ne moo représenté président conseil de quartier bi yëpp loolu day wane ne rek tey jeunesse bi ak magu commune Fann Point Amitié yëpp taxaw nañ ngir impacter positivement maanaam def lu baax ci seen développement